maanaam sa kër dana tas say doom dof sa jabar dem nga ñàkk ba faw maa la ko wax yi ma lay wax du amul amul ma dem te ñëw man may wax ak yow waaye sëriñ bi tanewu wu la ah moo tax yaa ngi nii nga ne vingt ans demoo fenn parce que sëriñ baa la tanewut oto bu paan dana yóbbu oto bu paan <laughs> waaw waaw ma ma wax. waaw man mii hmm. jox nañ baax na say jëkka jiisu moom mii nu la yëngal na ko. bi muy ñëw ci man ñetti dërëm mënu ko dajale. Mhm. tur wu ne indi na ko wan ma mu ngi nii toog duma bàyyi mu fenn imaam la ci Senelec. tur wu ne yëngal na ko li mu wax dëgg la armoire la yoroon armoire ba tolox tànge la ko juraloon ah, waaw mooy li yàlla wax ci alquran alladina kafaru yaa weddi turu yunfiquna amwaalahum jox nga sëriñ bi li nga am yëpp pour mu jox la tur wi li yasuddu an sabilillahi pour nga faj sa soxla fa sa yunfiqunaha summa takunu xasratan alayhim summa yuxlabuuna du la jëriñ tus mane ne say jàkka yi sax kilifa la waaw mais say bare na sax ku la naan say jàkka yi kilifa la kuy kilifa ga bare na ku la naan Shamharoshen Shamharoshen kilifa la xutbu la woon ci jinne yi ci jamono Serigne Babacar Sy la génn àddina te balaa moo dem ñëw na ba tàggu Serigne Babacar Sy te jamono yoon ci yàlla Suleymaan la doon dund ba ci jamono yoon ci sëñ Babacar si la génn àddina samharus bi nit ñi di di di di sonn di tudd ak wax boo xamul ku mu bàyyee yëf yi da nga fiy nekk naan samharus samharus yaa samharusin moom dem na bu yàgg mu ngi mel ni ngay adressé sa lettre président de la république ah monsieur président de la république maître ab euh, maître Ablaye Wade wala monsieur le président de la république du Diouf te président Macky Sall la fi ne sa lettre dana yegg te présidence la jëm nga adressé ko président Wade est-ce que dana jëm du yegg mu ngi mel ni nga naan yaa sam xaroshi kan la sam xarosh bàyyee yëfa doomam wala kan c'est ça le problème comme nag kii amul doom ji ñuy bàyyee amul ndey ji ñuy bàyyee mooy salatu ala nabi yem ci. yii parce que norme yim laaj ci jamono ci mooy ci zaman ci makkaan ci comportement ñi ko mën bariwul rawati jeunesse bi dafa laaj zaman mooy ba jamono bi d'abord ban jamono la mooy ban période est-ce que période sedd nga ko war a sikka est-ce que période tàngaay nga ko war a sikka est-ce que diggante sedd ak tàngaay fa nga ko war a sikkare est-ce que bii suba nga ko war a def wala ngoon wala ban période ci suba gi wala ban période ci ngoon gi nga door a am comportement bi bu comportement bi passé nga door a am laab gi bu yii dajewut dalay alag waaye du la jëriñ ndax yi yim laaj foog nga remplir ko pour jëriñu soo ko remplirul daf lay gaañ mu ngi mel ni garab boo doon naan mu wadd ci suuf nga for mu wadd boo ko naanee nu muy def médecin bi dafa la ne garab bi bu xesee ba micro topp na ko sànni ko jël benn jeex na xam nga lii ma la wax yëpp tur boo gis nag borom lal na intere ci suuf ba mu des salaatu ala nabi xam nga lu tax sa sidi yépp da doon wax yaa yaa yaa bii looy wax allahumma tële nga néew nga doole néew nga kàttan mënoo xamoo amoo mënoo def mënoo dindi nga ne tële naa ne naa yàcc allahumma yow ki man lëpp te xam lépp te am lépp te lépp daje ci yow salli jullil sa lenn newu ci intérêt newu ci benn intérêt làquwul ci biir allahumma moom laa laaj Abdou Aziz daan wax ne bopp kuy buum bu teegee dañ koy yeew ci bopp yëkku kuy bopp yëkku kuy wi mooy yonent bi ñépp daje nañ bloqué ne alaaj Abdou Aziz daan wax ñépp daje nañ bloqué mënuñu ñu ne allahumma nit ak jinneeg malaayka ñoo ñépp a daje mënuñu mooy bi yàlla ne inna waay waay niñ xool ki moom tur yi mooy wax de kay fa sa jamakin ke ko moom mooy wax am la xal la ma hudd ka ko moom mooy wax ismu jalaal ka ko moom mooy wax kooku moo ne hee sama tur yi tegal leen ma ko fii inna allaha man daj dëpp ki inna allaha man kàng mi inna laaha man mi wéet te bëgguma ko ma wéttali inna laaha man càppaa coli ji waaye maay wax ak yéen doglu leen ma ñu ne ko yàlla looy wax mu ne man mii day wa malaayikatahu ak sama malaaka yi ñu ne ko loo bëgg a wax mu ne ah li may man man yusalluna ala nabi est-ce que nit ñi dégg nañ yàlla wax foofu non man dama naan nit ñi est xanaa du dañoo dof ñu baal ma ci waxin lii bu ko yàlla waxee ba pare looy utati looy wutati amul benn garantie bu toll nii bu yàlla wax ci turam yi bii lu mu wax bële kañ xaste la sax law kaana al bahru midaadan li kalimaati rabbi mooy wane ne mënoo yegg si ci man law <laughs> law kaana al bahru midaadan li kalimaati rabbi la nafida al bahru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walaw ji'naa bi mislihi madada maa fi l ardi min shajaratin aqlaamun wal bahru yamudduhu fi sab'ati abhurin maa nafidat kalimatullah loolu yëpp yàlla wax ko ba moom mi ko wax nag di ponkal wax loolu ngand mi dajj mi càppaacoli gi ki amul ndend kii kenn te ku ko toppandoor dugg ci kàmb kooku moo di yàlla moo ne hee déglu leen ma sama tur yi tegal leen ma ko fële àttanu leen ko mënu leen ko man mi ko bind te moom tur yi tey borom tur yi man mii dañ sànj gi waaye waay daanu naa xaal inna naka man buur bi man yàlla mi bind jaam yi wa malaikatahu ak sama malaaka yi ma dut mooy ñun dey yu salluuna dañuy julli ala nabi ci yonante mu ne soxlawu ma ndimbal nag yéen laay dimbale yaa ayyuha allazina amanu yéen ñu lompoñ ñi ngëm lu lompoñ la di moo tax léeg-léeg nga këppu léeg nga jubal dafa ngëm dafa lompoñ moo tax léeg nga ne coowu ci yoon wi di julli rek di naafe la rek nga découragé rek di jooy rek <laughs> ah waaw ndax bëgg loo amut toog fa di jooy rek di yërëmtalu rek ndeysaan ah waaw kañ yàlla ponkal muy toll ni yàlla est nit ñi dégg nañ li yàlla wax eh, wala nit ñi dañ xamul ko yàlla boobu ma bëgg a wax nit ñi ne boog yàllaa bind alaaji Malick yàllaa bind sëñ Touba yàlla moomu moo bind Cheikh naa bu yàlla moomu moo bind Cheikh Tidiane yàlla moomu yàlla moomu moo bind maam Amari Ndak Seck yàlla moomu moo bind maam Adama yàlla moomu moo bind yont yàlla Noox moo bind yont yàlla Ibrahima waaye waaye kookoo tàllal asamaan si ngay séen te xamoo fu yem moo bind suuf sii te du pëtax mukk mooy ëpp ngelaw li ngay noyyi te deewagoo kooko yàlla moo ne man mi man lii maa leen wax ne ba leen lépp man ndey man man kii ma bind muy sama jaam doyloo naa ko ba yu sallu alayhi maa ko bind waaye doyloo naa ko maa ngi julli ci moom inna allaha naka buur yàlla wa malaikatahu ak malaaka yim am yépp ñoom day yu salloona dañuy julli daa iman ala nabi ci yonent mu ne kon yaa ayyuhal lazina amanu ey yéen yi nga xam ne da ngeen lompoñ seen ngëm dëgërut sallu alayhi bàyyi leen lépp te jullil ma ci moom sallu alayhi bàyyi leen lépp te jullil ma ci moom teg leen tur yi fële àttanu leen ko man yegsi wu leen ci man moo yegsi ci man won naa leen bunt bi sallu alayhi waaye waaye julli leen ci moom bu ngeen bëggee yegg si ci man julli leen ci moom bu ngeen bëggee jabar julli leen ci moom bu ngeen bëggee aajo bu faju julli leen ci moom bu ngeen bëggee ma gërëm leen julli leen ci moom bu ngeen bëggee seen lépp yomb julli leen ci moom bu ngeen bëggee àddina ak àllaaxira bu jag julli leen ci moom waay waay yaa ayyuhal lazina amanu sallu alayhi hmm. na ko ñëpp wax hmm. ko micro bi sallallahu alayhi wa lim mujj wax rek moo fi xew sabrun wa xayaaun wal amaanatu lii li ma mujj wax rek boo ko defee ci yonant bi yii yëpp ko am boo ko jullee ci yonant bi yëpp li la jafe woon yëpp dina la yomb boo amuloon sécurité di nga ko am boo ñàkkoon di nga boo feebaroon di nga wér yëpp la yàlla dëxëñ ci biir yàlla amul fenn fu mu wax ci alquran sallu lu dul ci yónnante amul julli li muy foor foor ku ko deful dem safara de julli allahu akbar yàlla waxul ko fenn ne xam nga lu ma waa aqimu salaat waatu zakat foo gis ci alquran yàlla di wax julli allahu akbar waa aqimu salaat rek lay wax xam nga lu tax julli kenn mënu ko fokk mu manqué moo indi baaqiyaatu saalihaat julli kenn mënu ko moo tax yonent bi ne sallu kama raaytumuni usalli ndax mënuñ ko moom rekk a ko mën toppandoo la ñuy def te sa maas moom du suñu maas wala <laughs> ko wax toppandoo sa maas te yonent bi du suñu maas moo tax mu ne sallu kama raaytumuni usalli julli leen rek ni ngeen ma gisee may jullee waaye mënu leen julli leen ni ngeen ma gisee may jullee rek waaye mënu leen man rek a mën moom nag moo ñu yóbbaale géew soo defee ni mu daan defee yàlla mbëmbëstal la manqué la yi ki yëpp moo tax mu indi baaqiyaatu saalihaat moom jox ñu muy complémentaire complément la ci biir julli gi moo tax mu jox la ko 33 33 muy 99 noo yëpp dugg na nga tëjee ko laa ilaha illa muy tampon bi muy cachet na moo tax julli kenn mënu ko moo tax yàlla aqimu salaat rek lay wax wax leen ma fu yàlla wax julli allahu akbar ne ne sallu amut aqimu salaata waatu zakaata inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ma tasnaun wa kunu maa raakiin irkaw warkaw wasjudu lillahi waabudu daf ko deta ba mu jeex ne kenn mënu ko nga ñëwaat ci sunna nag ak sharia aqimu salaata mooy bu cangaay ware njàpp tege ci istiqbaalul qibla tege ci makaanul musalli tege ci waaye nalaab fa ngay taxaw istiqbaalul qibla ba ba nga naan allahu yéene anniya innama al bi niyaati wa innama li kulli ma nawa ba ba ngay yéene ne allahu akbar aqimu salaata la ba ba ba nga naan asalaamualeykum nag loolooy salaat bu yëpp rassemblé ba nga ne asalaamualeykum te sa njàpp tojut ci diggante bi loolooy julli gu mat moo tax aqimu salaat la lay tax mu am te mat def leen ko loolooy aqimu taxawal leen ko ba ba ngay liqaam liqaam bi ci la bokk lay tax mu mat def leen ko waaye bi mu ñëwee ci salaatu ala nabi dafa ne lu ñu fiy jéem amut ndax def naa be noppi yóbbaale naa leen giiw inna allaaha naka man buur yàlla inna allaaha naka daj dëpp gi inna allaaha naka kufu an ahad ki amul benn dend inna allaaha naka ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf inna juróom-ñaar asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar inna allaaha naka ki bind arash inna allaaha naka ki bind kursi yu inna allaaha naka bind mbindeef yépp dalee ca maam aadama bi ci buftawal inna allaha naka ki bind yonent yi inna allaha naka bi ki nga xam ne moo bind awliyaa yi inna allaha naka ki bind suuf inna allaha ki bind li ci diggante bi inna allaha buur boobu ngeen xamut te du ngeen ko xam ba mukk ndax àttanu leen ko mënu leen ko ki ko xam laa leen di wax man yàlla may wax ak yéen waay waay ndijji bopp saqalay ni bàyyi leen seen dëgër bopp gi man yàlla mu bind jaam yépp wa malaikatahu ak sama malaaka yi ma am ñu ëpp leen doole ñun ñii li ñuy bari bari te baax baax lu bàyyi nañ lépp ala nabi di julli ci ndaw lii yëgloo ñu pare Seydi Hadji yëglu ñu pare Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani yëglu jotaay bi mat na ci kañ waay waay niñ déglu lii foofu laa koy jeexale ponkal mu toll ni yàlla bind lim bind am kàttan ku am moo la may ku ñàkk moo la xañ ku xam moo la xamal ku am moo la jox buur boobu taxaw ne man yàlla moomu ak malaaka yi ma am te duñ ma moy yéen man ngeen maa mooy waaye ñoom xalaatuñ ko sax ba di ko def ñun ñooñu de yu sallu na ànd na ak ñoom yu sallu na di julli ala nabi ci aboni bi annabi huwa al mooy ku ne coow jëm si ci man moo tax mu tuddee ko avenue an nabi huwal avenue ci tubaab nabi mooy avenue avenue Malick Sy avenue Cheikh Ahmad Bamba avenue boo ci topp dafa jub kocc moo tax dëgg la wala dëgg avenue Malick Sy fu mu dalee pompier ba ca raw du Cerno Seydou Nourou Tall avenue Cheikh Ahmad Bamba ba mu dale <laughs> avoni day jub kocc du dëng moo tax an nabi huwal avenue luxatan lim ne coow jëm ci yàlla laa iwaja laha amul benn jadd jàdd moo tax ñu tuddee ko avoni yàlla ne man moo mën nag julli naa ci yoon wi avoni bi su ngeen bëggatee yegg yaa ayyuha allazina amanu yéen ñi ngeen ne gëm ngeen ma su ngeen bëggatee yegg si ci man sallu alayhi jullil leen ma ci kooku waaye li ma mën mënu leen ko li malaaka yi mën mënu leen ko man lekkuma naanuma nelewuma laa taaxuzuhu sinnatun wala nawma malaaka yi ñoom itam maa leen abal loolu laa yaakuluuna wala yashrabuuna wala yanaamuuna wa hum ibaadun mukramuuna wa yafaluuna maa yumaruuna maa leen ko teg yéen nag da ngeen am soxna di lekk di naan di nelaw di yeewu di feebar di wér di am di ñàkk moo tax teguma leen li ma teg sama bopp teguma leen li ma teg malaaka yi sallu julli leen alayhi ci moom wa sallimu su ngeen amee ngant tasliman bàyyi leen jaam soo amee ngant teg sa kurus noppalu yàlla may la taslima mooy musal nga yonant bi ñaan nga mucc ci moom waaw yàlla wax lii ba noppi ngay uti leneen nañ yem ci yonant bi mag ñépp ci yonant bi lañ yem huwa baabullahi mooy buntu bu yàlla moo taxawit men ana minallaahi man rek maa jógee ci yàlla wal muminuuna min ni mbindeef yépp ci man lañ jóge taxawaatit ne allahu huwa al mu'ti wa nga loolu ku ko waxoon ko dul moom ñu fel sa gémmiñ mu ne allahu buur yàlla huwa moom joxe waaye wa ana man ndawam lii ñuy wax rasulullahi ñu ne ko ah mu ne al qaasimu may séddale ku ma joxut doo am <laughs> loolu moom rekk ko mën a wax jàmm am keneen ku ko waxoon àddina tukki nañ jël suñu lépp jox yonent bi moom moo fi ne leneen newu fi ku bëgg leneen demal ca leneen waaye yónnant bi rekk a fi ne nañ yem ci yonent bi ku yem eh, nañ yem ci kudd ñu roof ñu ci mbafu ñun ñooy kudd gi yonent bi mooy mbafu gi turi yàlla paaka la kenn du ko jiitu ci mbaram buy ñëw dagg la turi yàlla paaka la de kenn du ko ji paaka nag wolof nee na kenn du ko jiitu ci mbaram boo ko fay jiitu buy ñëw nga génn wala mu def la ko na ñem ci yonent bi yal nañu yàlla defal sutura yal nañu yàlla may dëgg dëgg dëgg dëgg topp yonent bi yal nañu yàlla may dëgg dëgg dëgg xam yonent bi yàlla nañu yàlla defal dëgg-dëgg bëgg yonent bi sopp ko yàlla nañu ko yàlla may te yàlla na sax dàkk ci suñu xol yi baawaan rooya jëm ci suñu xolu njaboot yépp ba ñun ñëpp ñoo ànd sopp yonant bi bëgg ko te topp ko nag te royi ko yàlla nañu ko yàlla defal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ma ñaan nag na ñépp toog waaw wax naa fi ba tàyyi kilifa li mu am lay joxe kilifa du joxe mukk li mu amul te ku yéene ay njabootam rek moo leen di jox li mu yéene boppam foog naa ni wax naa ko fi ba tàyyi ba am na xale yu ma ne ndigal li sërif joxe ci istixfaar bi 6440 bi ak juróomi téeméer salaatul faatiha yi sang bi tudd léegi ñoom ci lañu yem heure bu neex ma wax leen ko fii ma ne leen yenn tur yi dafay gaañ nit wax naa ko ba tàyyi ngal la nag ba mu ñu ko tojalee ci alquraanu tey alquraanul karim ba mu leer ci suñu xel ñun ñépp ak suñu nopp man lii day bu fekkoon ma dem lu bari dana ma rëcc lu bari dana ma rëcc yàlla dimbali na ma bopp ba léegi moom 6440 istixfaar yooyu mu wax mooy sama liggéey guddeeg bëccëg ak salaatul faatiha juróomi téeméer yi ginnaaw tariixa bi xam nga kuy wax ak koo xamante ne loo wax xam na ko bu dee dëgg day day naaw ba ñoom di ñu di ko séen ndax ay nitu yàlla lañu boo waxee lu dul dëgg dafa dafay laal ci suuf ne putt bañ koy dégg ci seen nopp boo ne tekk di xalaat sa xalaat di leen xeeñ ni ci lu ñu rosi kooku booy wax war ngaa xam li ngay wax lu dut am na ci loo xamante ni yàlla dimbali woon na ma ci tuuti moom mii mu jubbanti ma ci lu dut loola barkeelawuma leneen ndax ndigalam wax na ko léegi ci biiri kàddoom nit bu la yilifee da ngay nangu mu ne la tegal sa tànk fii nga teg ko ci boo ko bëggul rek kilifteef nekk fa yow yaa ko fa teg waaye moom xam na fan la lay féetale ndax ku foog ni yaa gën a yeewu sëriñ si nag sëriñ si ba ñu yeewu yeewoo ko ñépp lañuy àndal waaye ku ci nekk dañuy xam fiñ lay teg ñépp lañuy ñuy àndal ndax ñemewuñu bedd kenn am na ñu mën teg xosari ndax amuñu portable bu ko am rubbama xaariul quraan lu ma wax rek man ci alquran laa koy rubbama xaariul quraan wa yalanuhu alquran sallallahu alayhi wasallam nee na bari na koy jàngal quran alquran na nga koy rëbb loolu la jéem a jamee tarixa bi ne Cheikh na Tijaan yi moo wax ne salaatul faatihi jàng ko moo ëpp doole jàng alquran du dëkk Seydina Cheikh dafa kenn daf ko gën a fonk alquran moom mi ne sama tarixa bi ku ko jàpp bu dee mën nga jàng alxuraan bër bu set na nga jàng ñaari si ndax tariqa bi lim lay gunge istixfaar boobu ngay def ci tariqa bi téeméer salaatu ala nabi bi ngay def téeméer laa ilaha illallah bi ngay def téeméer ci laazim bu dee wadifa istixfaar bi siixatil xayyil qayyum 30 fois salaatul faatixi cinquante laa ilaha illallah 100 jawaratul kamal 12 noonu inverse boobu ci am inversé boobu ci am istixfaar yooyu yëpp boo ko dajalee mënaloo ko sa bopp ndigalu Seexuna Tijaani moo tax nga mën ko mooy taxit nga di ci am la nga cay am Seexuna mooy fomp nag sa xol ba boo jàngatee alxuraan jëfe ko alxuraan dootu la rëbb moo tax Seydina Cheikh ne kuy si sikkar sama pare xam boole ci di jàng ñaari xisib dootoo mën a def ndëngati ba alxuraan di la rëbb looy jàngati rek day fekk dëgg la ci yow jamono moo laaj yu moo laajatut yu bari te nit ñi dañoo yàkkamti xuli xal insaanu min ajalin yàlla ne mu ñëw sa urikum ayaati huwa ayaatuhu astaghfirullaha laa wax bu ci boole nag xayul xayoom boobu du boobu du bosu ñépp moo tax astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayul qayum du bosu ñëpp titre foncier la bii domaine national la astaghfirullah domaine national la astaghfirullah ñépp a ko bokk istaghfiru rabbakum innahu kaana gaffaaran yursili sama aleykum midraara wa yumditkum bi amwaalin wa baniina hmm? wa yajal lakum jannaatin wa yajal lakum anhaaran maa lakum laa tarjuuna lillaahi waqaaran maa ana lan tarjuuna lu tax yaakaaru leen lillaahi jëm ci yàlla waqaaran ndawam lii ne fàng ci biti ah waaw alhamdulilah fatiha mooy juróomeel bi dañ ko indiwut mooy juróomeel bi mënta ñàkk ci julli ku la newul julli ku la ne naafilaal te waxu la jàngal fatiha naafila ba du wér naafila gu mu mën a doon kañ di nga jàng fatiha ak loo mën a tari di nga jàng fatiha fatiha moom eh, inter kii la rond la foog nga wër ko incontournable la foog nga jàng ko moo tax benn fatiha ngay jàng faatiha boobu moo taxaw taxawaay yàlla ak yonent bi istixfaar nag yaa ko moom yonent bi yoonam ne wu ci ndax moom set na benn hmm? astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfir allahu lahum <laughs> tubaarkalla du du du ma lor ndax soppe la waaw ah, wax na dëgg du ma lor waxam du ma lor ndax soppe la yàlla xam naa ko waxu soppe du lor kenn te moom xam naa ni soppe la yàlla xam na ko ah loolu la astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fa lan yaghfir allahu lahum naa feq yaa taxoon muy wax kon boo indee faatiha bi nag mooy doon juróom mooy xawaidul islaam yi ñaata la xamsatu léegi am nga ponk lislaam yépp yaa ngi koy taxawal anasiwul arba yépp mucc nga ci mucc nga ci ay wuy jógee ci suuf mucc nga ci ay wuy jógee ci ndox mucc nga ci ay wuy jógee ci safara mucc nga ci ay wuy jógee ci ngelaw al anasi al arbaa moo am ñeenti mbir rekk a am ndox safara ngelaw suuf nit ñépp nag yàlla def leen distribuer kii maa yi la kii hawaa yi la kii turaab yi la kii naar yi la ki ci gën nag mooy maa yi waxuñ na nag turaab bon na ndax boo amee gerte gi te amoo foo ko ji foo jëm boo amee gerte ji ko ba noppi ndox ñëwut foo jëm boo amee gerte am ndox te amoo suuf soo ko ji foo jëm boo amee gerte am ndox am suuf bay ba mu ñor te amoo safara soo ko toggee foo jëm dañ gënante waaye bu ne baax na te léeg-léeg ngay napp xawaa yi bëgg a faj aajoom boo xamut fooy comp ci turaab yi ak maa yi ak hawaa yi ak euh, naar yi pour defar ay mbiram doo defar mbiram léeg nga ne nit ki nitu ndox la dëgg la maa i la yaa ngi bëgg a defar mbiram fooy jaar ba defar mbiram am na aslaf ci maa yi ci ci turaab yi foog nga jëli loola tailleur bi bi muy ñaw mbubb mi kañ uti na ay wëñ yu bokkut brodé bi pour mbubb mi gën a rafet du dëgg ok nga tax al aana xaffafa llaahu ankum astaghfirullaha astaghfirullaha astaghfirullaha bokkul ak astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah bokkuñu astaghfirullaha da ngay indi maskayet bi fatxa bi astaghfirullah sukun la da ngay sukun hamza bi li tax ma ne astaghfirullah boo ne astaghfirullah dàq nga waaye indi woo dara yursili sama midraaran doo ko am li <laughs> yàlla de yursili sama aleykum midra wa yumditkum bi amwaalin wa banin doo ko am ndax danga dàq waxoo dara astaghfirullah say bàkkaar dem na waaye dara du ko remplacer yursili sama aleykum midraaran du ñëw wa yumditkum bi amwaalin wa banin du ñëw wa yaj'al lakum jannatin du ñëw wa yaj'al lakum anhaaran du ñëw maa lakum lillah laa tarjuna lillahi waqaaran doo ko gis da nga naan astaghfirullah ñëwul astaghfirullah astaghfirullah okay da nga dàq xëcc astaghfirullah bàkkaar ya baal ma ko ha indil ma xéewal hawa <laughs> moo tax dara du ñëw dara du ñëw astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ñeenti yoon waaw massa na ko naan astaghfirullah astaghfirullah loolu moom du waxu dara moom te lu waay jéem mun ko moo tax ñeenti yoon xëy na boo ci doon da fukk ak yooyu soo xaw a xaw a sonn waaye astaghfirullah ñeenti yoon yomb na astaghfirullah ngay wax astaghfirullah ha bi indi ko te mas ko fatxa boo xamul fatxa mooy yet ci wolofal mas ko yet yonent bi rekk a fi ne leneen newu fi lu la waaye di xëlamtoo mu lay tuur lëndëm am na nag waaye jamono laaju ko jamono laaju ko jamono bii salaatu ala nabi rek la laaj laajul leneen soo ca jógee nag ah, alxuraan boo mënee jàng waxoon naa ko fi jàngal boo mënul jàng amoo lay taalal sa portable nga dugg wa ida quri alquran fastamiu lahu wa ansitu